salaamaaleykum mbokk yi euh, ñu leen di nuyu fi nga xamante ne moom mooy si kër colonel Ousmane Faye li ngeen di gis ni yëpp euh, tey jii nga xamante ne moom mooy fanweeri fan si weeru bi ñu nekk nii euh, mu amal li nga xamante ne moom mooy ndogu yi nga xamante ne da koy def si koor gi maanaam bu demee ba koor gi digg doom dañuy def li nga xamante ne moom mooy ndogu bernde li nga xamante mooy nii kër yi nga xamante ne ñi ngi si biir bés boobu nag mu jagleel ko ki nga xamante ne euh, moom mooy sëñ Lamp sëñ Lamp Mbàkke euh, képp ku ko xam nag xam mi ngi dëkk fi nga xamante ne moom mooy kër yëlli euh, moom lan parrainé jagleel xamante ne mooy bés bi boo ko jógee nag ñu ñëw nag si li nga xamante ne mooy bés bi nga xamante ne colonel Ousmane Faye mu bëgg sëñ Fallou Mbàkke ñu koy wax colonel Sëriñ Fallou Mbàkke di organiser lii nag moom bu ngeen ñu toppee rek dinañ leen won li nga xamante ne moom mooy bernde yi fi am yëpp li ñu war a waajal teral li nga xamante ne moom mooy askan wi teral li nga xamante ne moom mooy ay xarit itam ay ndoom ak ñi nga xamante ne moom mooy dëkkandoom ak ñëpp ñi nga xamante ne euh, mooy tuutu tànk yeeg ñëpp di nga leen gis tey ji euh, ñu teral leen ñu fas ne def tey benn euh, cérémonie officielle boo xamante ne dina am ay zikkar am lépp loo xamante ne incha allahu rabbi di ngeen ko gis si li nga xamante ne moom mooy am bu ngeen ñu toppee rek incha allahu rabbi dinañ ànd ak yéen wan leen li xew si li nga xamante ne moom mooy si bés bi nga xamante ne moom la colonel organisé mu ay ndogu yoo xamante ne yu macha allah في city leeri moo ko tabax ba mu yaatu yàlla aaw mooy ku yoonu Serigne Touba yi mooy gi di gën ba mu yaatu kàpp ba dañ àdduna yàlla aaw du denc mukk alal lu ñëw mu fab ko ñaxe te bam nga gàcceel na di ko ñaanal mbooleem njabootu Cheikhul Khadim yi ak mbooleem kilifa diine yi ak jullit yi nuyu kilifa yu baax yu tëdd yi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi tàmbale sunu nuyoo ci sëriñ Lamp Mbàkke moom sëriñ Modou Rokhaya ñi nga xam ne moom la ñu ñëw ci jataay bi sëriñ Fallou Mbàkke moom sëriñ Abo moom Cheikh Abdoul Fadal di ko ziare bu baax bokk yu baax yi mu àndal sëriñ Cheikh Oumy ak Cheikh Amadou Moustapha ak ñi ñu àndal ñëpp noo leen di nuyu di len siyaare bu baax di ñaan yalla serigne Abo mu baax mo mo nek ci bopp jabo serigne fadidou yalla sunu borom yàggal ko te wéral ko ba mu eggale ay iya, yéene mbakki nala la nuyu sunu serigne Cheikh Mouhamadul Mahfouz Mbacké day ne borom deew di ko ñaanal yalla sunu borom gën ko dëgëral bu baax te kattanal ko sëriñ bi noo lay nuyu lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax kilifa yu baax bu nekk yëpp kenn ku ci nekk noo lay nuyu di nuyu sëriñ Ousmane Faye mi nga xam ne moo woote bis bi di ko ci dokkeel di ñaan yàlla yi lépp lu mu ci séntu ci lu baax yàlla lokk yàlla jotale te guddal fanam te guddal fan yi way juróom waaye ak njabootam yëpp jànkatu xasaay yi maa ngi koy jaare sunu mag yi nu feggoon muy sëñ Modou Galas Baye waaye nuyu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi fi nekk Serigne Hassan Serigne Djili Serigne Gonda noo leen di bu baax di ñaan yàlla suñu borom mu wéral leen te yàggal fi kilifa bu baax di Serigne Abdi Khadi waaye taxawu ko ba jëf yu am solo yeeg taxawaay bu rëy bi mu taxaw ci yoonu Mouride yàlla suñu borom yàggal ko fi lool lool te yàggal fi. Ya, kan, sering am ñi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Samba Lo noo ngi leen nuyu bu baax noo ngi sant yàlla ci jataay bi nga xam ya, kan, ya. eh, ne bésum ngëneel la bésum tawféex la ndax bis bu ñuy defal Cheikh Mamadou Fadal mooy bis bu ñuy defal Serigne Touba Serigne Touba gi ñoom ñëpp ñoo fekkee jataay yi mbokki taalibe yi fekke ko kon fàttali ci fàttalante ci ak laaye biirante ci wàtteef la ci ngir Sëriñ Tuubaa ay jëfam ak taxawaayam ak liggéeyam waxtu wu nekk dañoo war di ko waxtaane ndax sëriñ bi luñ ko gën a xam rek gën a bëgg te luñ ko gën a bëgg gën a jariñu kon di ko fàttalee ak di ko waxtaane ngëneel rek lay jur muy koo xam ni fii àdduna toll yàlla na waxtu wu nekk ñi gën a xam Serigne Touba dafa am lu ko taxoon a jóg te la ko taxoon a jóg ba ci ngoonu tey gii du nekk ci la njaboot gi nekk ci la taalibe yi nekk te loolu mooy a daxawtul islaahiya boo xam ne dafa ñëwoon ngir yeesal dafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu lislaam yegg yi ak taabiina yi fa yeggale yonent bi sallallahu alayhi bi ñu fiy lislaam wasaaroowul ci goxi àdduna bi waaye ba muy dem dafa batale woon ne na ngeen ma jot ni doon ko ne benn aaya sax loolu tax na ba saxaaba yi ginnaaw yonent bi sallallahu ki njëkk a taxaw xeex loolu mooy Seydina Abu Bakr as-Siddiq ndax bi fi yonent bàyyi ko saxaaba yi dañoo taxaw bëgg bañ a joxe ci zakat muy asaka loolu tax Seydina abou Bakr leen xeex ak ñom kon lolu dëgëraat la ci fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bayyi won moko waral won ginnaawam it Seydina Omar ibn Khattab bi ñu koy faat moy khalifa bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nek amirul muminin taxawal lislaam ak dàq bidaa ak saxal dëkk lolu ko waral Seydina usman ibn Affan mi ñettelu khalifa bi yonente bi bi ñu koy faat am na juróom-ñetti keroog yu topp gis ngeen ne keroog bi mu biñ ko xasee yëngu yu bari te la tàmbalee ndax Muawiya ibn Sufyaan dafa waxoon ne du jaayanteeg Seydina Ali te xamul kan moo faat Seydina Ousmane kon yàgg na ay yëngu am waaye teewul nag saxaaba yi fexe nañ ba wasaare jëm mi l'islam tey jii fii Espagne l'islam moo ko moomoon nangu ko xeex ko ba lislaam tasaaroo boo demee nag bu ay jeexital ci Espagne am na ci dëkk yoo xam ne sax la muy tegtale lu mel ni Trovica wala lu mel ni Alicante nga xam ne dañuy Alicante mooy tegtale ne daa léegi noonu boo ñëwee ba Madrid yi ak Alicante une heure de temps ci avion boo demee Trovica 45 minutes la ci oto tey jii loolu lu muy tegtale mooy euh, Trovica sorol yu

بالدم بدي احتابي عن الجح تابي تابي عن الجح مجدد نيونو مجدد دينا يونت بي صلى الله عليه وسلم وقال بوب تيمير اك بونك دا نا يالا دا نا واتي كو ياسر دينا سيري توا ابو الحبيب الشيخ القديم قديم الرسول بي نيوي ريك لين لين لين واخ موي فيرنيل ني للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد kon sëñ Touba tëj ji da ko mu yeesal li tax sëñ Touba wuuteeg ñi doon yeesal nag lislaam tabax la buñ tabax ba noppi mi ngi mel ni bâtiment boo xam ne dañu ko tàmbalee ci def li ko war fu def wéete ko utal ko ay jaay utal ko semaine yu baax defal ko fondement bu dëgër tabax ci bâtiment bu dëgër ci ñëw ñiy yeesal am na comme dañ koy wax fichier yi ñooy yeesal kii peinture bi ñi war a yeesal plâtre ñi def électrique war a def plombier kenn ku nekk ñu ne la lii ngay yeesal ndax ne mën nga ñu benn faasal yeesal ko ba dem sax mu jàpp ne yeesaluloo waaye yeesal nga wéet nga bu dee tool bi dañ lay doon sëñ Tuubaa nag bi mu ñëwee dañ na ko jëmmi tool bépp lañ la dox na nga ko yeesal jëmmi tabax bépp na nga ko yeesal ba mu yeesal tax moo tax it mu ne nazafatuhu kulli min al-lahwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ko bayin kon danaa ko yeesal li tax mu wuteeg ñëpp aw yeesal yi moy xam-xami gaay yu bax yi ci jikkoon yëpp yàlla da ko do sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa yu xam-xamu wàll yi rek wala xam xam borom xam-xam sëñ Tuubaa na ne yonent yi ñu yàlla yónni ni yàlla solo te yónni wu leen muy ak anbiya yi ak mursalo ak wali yi ak borom xam-xam ñoo ñëpp yàlla boole na seen xam-xam yi jox ma ko mu bokk samay may yoo xam ila ilay yaqadallahu ilma al awliya kal anbiya wa rusulihi fi nayliya nga xam ne kon xam-xamu wàll yi la yor ak xam-xamu yonent yi ak yàlla solo te yónni wu ak way xam yi seen xam-xam lépp suñ ko ba dajale moo tax muy wax ne suñ borom dafa tàbbal si biir sama dënd bi xam xam xëy bu yi nëpp yëpp ndax yàlla moom mooy ki may jàngal yaqudu ulumul xëy du rabbi muallimi ila kalkali faydan yurid lafza wal maana sëñ bi bi mu fi nekkee diiru juróom-ñaar fekk yi dund yëpp nga xam ne fii la mujj ci njëriñ luy tax sunna leer rek luy tax lislaam taxaw rek waaye mës la am am kem moom kenn loolu ci kaw su musul am sëñ Touba amul kem amul lu roowaale sëñ Touba hors série la sëñ Touba benn marque la fardun walay sa lahu nafiya la bi charqin bal la bi xarbin taraat xam ndax matan dahiya di tàmbalee pekkoog sow da ngay wër ba mu daj doo ci gis ku mel ni sëñ Touba تنور وخل نقبكم لنا تقييم تقييم تبي وما تلنا ملو تحكم اللي من أمور تبين لكم اللي من دم يمكيا مدخل نبي مدخل نبي قاد لي ما لم يرى شكلي وفي الدار من شكل لم يرى ستك رسول الله أمي لو خل نك كن لكم اللي من تبين لكم أمكم اللي من تبين لكم ورب خم خم يكوي تقدر يمي سالون نفهم كنا رجعنا لكم وتقدر تقوي يمي كن لكم كن مسيد لكم يقتي وهم دنا كلنا تأمر تبارك دنا كفردو walaysa lahu nasirun fi saxaa wa kasa tuqaa waa ngi ibadatu rahman dana ko Sëriñ Tuubaa amoo am kenn ci ak tax maanaam yàlla wàcci wàcci wàcceegul ci àdduna ku mel ni Sëriñ Tuubaa ci tax xol bi mu am ak li mu am man koo maye ku dul Sëriñ Tuubaa mënoo te li àdduna doxe koo xool xam ne ku dul Sëriñ Tuubaa mënoo Sëriñ Tuubaa ngay joxu juróom ñu doon la joxe million nga jox ko mbaam ñu lay joxe kaat kaat nga jébbalu jox ko sa bopp ñuy jur di la jox nga jox ko tollu képp ñu lay joxi sax te contrat sëñ Tuba amul rôle bi lay te du jeex ku mas a wax jaay jëf ku ne barke topp loolu ko amoon da ko côté ba ku dul sa koog doo ci jot tabe ci turu yàlla ba ci xasida yi ñuy jàng fi mu toll nii nit léeg-léeg mu góorgóorlu ci wenn tur defe neen mën na caa dox sëñ bi jëli mbóot ya ak secret ya dëgal ko ci biir xasida nga xam ne ñaan gu nangu lay doon waqbal bihi nasbi hada ya karim wa rabbil bihi yunaji maa yow nga xam ne yàlla nungul ma lii ba noppi te nungul képp ku ci jayaayam bu ne ko kasa tuqaa bu dee ragal yàlla amul ku ci mel ne yow juróom-ñaar fukki at ak juróom la dund ci àdduna ma sët yi ma sëfaat wax fii fii njëriñ la ma sa rëdd ñetti rëdd rëddaat ñetti rëdd jël baaraam bi te ci ne yett yi laa seq ak yàlla sama borom ñett yi la seq ak jàmm yàlla sama borom lu mu digle def na musuma def lu muy tere lu mu dogal neex na ñett yi la seq ak jàmm musuma jël tooñ kenn ku ma tooñ baal naa ko lu ma am bokk na kon kenn ku mel ni moom ci ragal yàlla ëpp ma seet tiim benn wax loo tax fay gi ko yàlla fay day sax dàq dafa Cheikh Mamadou Bachir Serigne Bachir nee na xaala lii daata yow mi sëñ bi ma wax benn bis xaala lii wax na ma xaala wax na lii ñeel ma man sëriñ def lii salaata yow min benn bis sëñ Tuubaa nee na sëñ Basiru nee na sëñ Tuubaa dana inna sab'a siniina allati matusaha fi Congo ma daa sa yazharu yow ma tudda saray sama juróom-ñaari ati géej du réer mukk bis pénc ba lépp nëbbu woon di feeñ ca lay feeñ daan na ko li tax mooy bi may jaamu yàlla dama ko nëbbu bi ma yàlla fay nëbbu ma waaye laysa fi dunya bi dar jaza wa sha'nu fil axira adduna moo dul këru pay mbir mi ëllëg la doon kon bu dee jaamu yàlla kenn melu ci ni moom bu dee ragal yàlla kenn melu ci ni moom loolee mu doon liggéey samp ko di ko taxawu ay guddeen ay bëccëgam waxtoo mu nekk di wéetal yàlla ba dund lim dund keroog bi muy jógee ci dëkkam bii di al muqaatul mubaarak di Njaaréem def fi fukki at ak juróom wam sa Chine di mille trois cent quarante six war a doon 1927 keroog bi ñu fi jógee di dem di dëkki Touba genn jumaa la am ñu fi nekk muy jumaa ji taalibe yi yenn communes yi mu ne di nii réew la ginnaaw Serigne Touba lu Serigne Touba bëggaatoon ginnaawam la loolu li ci déggee mooy bu ñeeg Serigne Touba ba mu fi jógee léegi fi la defar yàq loolu dëkk dañ ne 1927 bi fi Serigne Touba jógee la defar nit ci yoon wi jeex dara lu ci dëkk jenn jumaa la fi bàyyi bu defaru toonu nit bu boobaa tey jii téeméeri jumaa ak juróom-benn fukk ak ñaar ñoo koy jënd ak ñaata seex la seex moom du Moussa defar mu sëñ Mbour Moussa defar ginnaaw suñu Touba di tàmbalee ah 27 ba 47 ginnaaw Cheikh Abdoul Moustapha mi nga xam ne li ko suñu Touba batale woo muy jumaa ji ak dëkk bi ak yoon wi ak jëmmi boppam mu taxawee loolu assumer ay responsabilités ba loolu lépp mag mu defar ay kàngam. dengan aimboy ba sampal sëñ Tuubaa lañ def fi jógee 45 Cheikh Abdoul Fadal mii ñu sax tey ñëw taxaw mottali projet yi mooy eggale jumaa ji doonoon naa lu Serigne Touba bi gën a rëy mu bàyyi ko Serigne Fadilou defal bu fekkoon ne njabootu Serigne Touba gi defarul aw nit kon duñ joxe addiye duñ siyaare ji duñ dégg di def yoonu murit ba noyyi gi ngay mujj noyyi kuy defare di fi nekk bu demoon ba bindeef mu ko mën néew fi sëñ Tuubaa ne xasida yi man na kitaabati qaa'imatul maqaama cheikhi muraqim wa yubul maqaama xatti yusilu muridu tarbiya ndi jeex wa muridu tarbiya defaree la fi jóg sëñ Tuubaa ne na nga defar yow yàlla na nga dugalal ci sama loxo defar yéwee na moo tax sëñ Tuubaa mooy defar ñooñam it di defar ñu ngi gor ay dëkk sanc ay dëkk defar ay tool di tàggat aw nit yaa ngi gis ay mbooloo yu taxaw di nafila kaamil alquran bu ñu leen defarutoon duñ ko man di sant ci ay dëkk ba gën a sori tey jii boo xoolee ci réew mi ñaata dëkk dafa sëriñ si sant ci defar ko nit ñi dafa liggéey kon ñàkk a xam mooy waral nit jàpp ne dafa sëriñ Tuubaa jógee dina jeex bu jeexoon kon doon asibas bokk na ci naala yi gën yi mujj nga xam ne bokk na ci li mu waajaloo ginnaaw dem Makka mooy tabax ab jàngukaay ki ko njëkk a wutal ab jàngukaay mooy Cheikh Amadou Fadal bi jumaa ji noppee moo def Daarul Maarif ci biir jumaa ji ca la sëñ As Jaxate ci jàppee te mu ñaanoon boromam yàlla moom il Moustapha lii banal kudu si madrasatan biha yazalul ada wal jahl wal karam tey jii université baa ngi nii ak 37 milliards fekkoon ne sëñ Tuubaa mënut a defar wala ñi ci ginnaawam bu ñu leen fi bàyyee mënut a defar kon xol yuy joxe ak nangu gu ñu liggéey baax yéen sëñ Tuubaa du kël gi yéen sëñ Tuubaa du du sëñ Tuubaa yorul ab projet yorul association yorul mouvement yàlla fi sama barke di fi sax sama barke di fi nekk bale dañ ci waasiatun mu baax yi baqaa mun li hibati saf moo tax adduna mënut a yóbbaale mel ni ñoom seen foofu jëmm ji ñu fàttali ko nag Cheikhul Fadal dafa am taxawaay bu rëy bu mu caaw boo xam ne jëf jële ko mat Serigne Fallou doy na ci ngëneel rek lépp lu mu am Serigne Touba da koo jaay jënd ko teel ku ñuy wax Serigne Saxin Mbacke Serigne Touba dana ko Saxin ndax Mouhamadou Fadel jaaxalul mu ne ko xam ah, kay jaaxal na ma de mu ne ko bala ngaa yéemu da ngay xam li mu def mu ne ko mbàkkee lu def mu ne ko daal amul lu may lenn jaay nga xam ne amul lu may lenn jaay sëñ Tuubaa mooy ndayam sëñ Tuubaa mooy baayam mu jël juleen gi ko sëñ Tuubaa ci dugg lépp na ko jébbal naa la loolu nag li muy tegtale mooy mat gi mat mooy lii tax nit mën a jariñ sëñ Tuubaa détail boobu ba ko sëñ Tuubaa di wax sëñ ma Samba fa ne sëñ Mor Roqe Bousso Cheikh Mamadou Moustapha Kebe waaye lay firndeel loolu mooy béy di seen fàllu bind jaay ci ak juree lan te yemu ci boo jaayee dara ba moom dégg ba la neexoon ba def sa njëm lu la neex waaye seen fàllu ba mu ko jaayee ba seen tubaab ba mu ko ak juree lan gim jaay jënd ko tane te la ko dégg gi ko jëndee maa la ko jox akat yi yaa ayu saykina min seen murtaja yaa fatihan ma kaana qablu murtaja jaatu bu nubuwati bi irada lakum li ngay oxva bi alkaada min baadi ma shtariitumuuha minni fa innii ahdaytuhaa lakum bi ghayri baad yaay sama wujju maa jël njureel gi man Mouhamadou Fadal jaay la ko jëndee ko taalibe njëg gi ma caalit maa la ko jox bi ghayri baad mooy loo xam ne amul ñax amul nekk di xonatu amul dara dama ko joxoon bu set kon dafa jaay ak njureelam digganteem ak Serigne Touba jëndee ko ak ak taalibe bi. baxran min al anwaari tastaqiru da ngaa sosoon ci jant. sosol ci weer weer bi soxna Awa Bousso jant bi di xaadim rasul waaye yaay géej baaxul ak yow sëñ Fallou sëñ Fallou mooy koo xam ne am na ku koy tagg dana ko yabulul xadimi lazi ma xalla saatuhu aatin yuraaj bihi ila salla faatu mooy doomi sëñ Tuubaa yi nga xam ne képp ku wàcc ak ëttam di sàkku nga neen am looy wut am nga lu kawe sa jox du xool ci du tas yaakaar nga ko ko laaj ku laaj mu jox la nga giijal Fallu xel mi la. Serigne Fallu moomu nga xam ne kon ngëneel yu mag yooyu mu jagleel sëñ Mouhamadul ma ñan ba mu koy tagg ne man waddahu wadda min al axyaari wa man jafaa wadda bil axyaari nee na ku bëgg sëñ Fallu ci yi nga bokk tànnee saa yoo bëggee sëñ Fallu ci gaa yi nee na képp koo ko joxoon gi ginnaaw mu dëgg leen arrière arrière mooy safaanu axiyaar sëñ Fallou xajewul ñëpp dafa am kilifa bu baax sëñ Fallou doon na ko gane si mu ne ko Mbàkke man sëñ Fallou xajoo ñëpp mu ko man Mbàkke damay ganut sën dama bari tax tax sëñ Fallou na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis di nga woyof na toog nga kaw bu duus ñëwee na ko tane ne xajoo naa si nee na ko ëttu sëpp damay ganub sël sëñ fan lu na ko may ëttu géej boo ñëwee lu diis di lu woyof na tomb ci kaw mu dus ñëwee na bokk nekk wala mooy xajoo gi mu xajoo woon nit ñi dama leen yóbbuwale bu doon ko xam ne ni makaarimu axlaaqa làmboo woon ci moom ci xajoo woon ñëpp ci yërëm ñëpp doon jullit xàq na ndax baati yi mat na ci moom aj na makk tabax na jumaa te mooy imaam sëñ Fallou la gisoon boo xam ne yaa tabax juma di bind xutba bi di jiite ajjuma ji di waare moo tax sëñ Moussa Ka ko yaa mag yaa fi gën dafay magoon ba noppi gën moom Serigne Fatick Serigne jéeri waa nag sugu dafa mas a ñëw njéeréer sëñ Fallou ñëw nuyu mu ne ko daa am lu ma la bëgg a wax yow Mouhamadou Fadal te lii ma lay wax sa bàyyi sëñ Touba sax génn ci yow Mouhamadou Fadal. ku ne war na laa liggéeyal bu ko bul war naa wut ponkal bu lay liggéeyal yow nag tollu dara wóorul ci kenn. moo tax Serigne Moussa Ka ba mu koy kañ dane man lu ban lu juumul bi diw safut weer Serigne Fadilu mooy weer wi leen di jox leer alil fadlu bisul fala taxiisu jawaadan bi ximaarin fa saa raisu na ngeen seere de fekk jàngu leen siin ba Serigne Fadlu lay def Serigne Touba waxaat feneen ne allahu sul fadlu azim ku mu jox nga leen défilé fadilu mooy fadlul hamid turam mooy doy na xërlu mooy doomi sëpp suñu xamar mbàkke mbusuur bi duñ ko jàpp moo namp yaari weer ni ngor mooy bamba tey ci xërlu ma ne war a ci bokkam boo demee ci biir kër sëñ Fallu ñaata kuréel la nga di fekk da ko fekk lamp fan lamp muri dina Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne loolu li muy jàngale mooy boo gisee soror bi na sëriñ dañ cey jàngale ki tax na julli mii di Sëriñ ko lim Kuba bëgg a jariñ Sëñ Tuubaa da ngay def li ñàkk julli bi di Cheikh Ibra Fall am Sëñ Tuubaa mu ne suñu jariñ di boo di Cheikh Ibra Fall problème bi mooy Cheikh Ibra mot de passe bi mooy Cheikh Ibra code bi mooy Cheikh Ibra même murit bu même murit bu sax sa muni ndaw sax sa mémoire pour si ñàkk comprendre Cheikh Ibra Fall saw doxin dana yeex te saw doxin dana ñaaw ndax Cheikh Ibra dañ koo bàddil baykat bi dana dikkalu ilaahi la sax yéen loo liggéey joxe ci lii la jaar ba ñu xëy ko Cheikh Ibra Fall amaana waaye di ko ya. nah, jeex ci téere ba jamono allahu akbar yàlla noppi na Cheikh Ibrahima ëllëg dañuy xam mbiram buur yàlla moo xaral wallaahu yaxalu maa yashaa Cheikh Ibrahima basmala lam ba ca kaw tiim daal de kenn xamu ko daa gaa di Cheikh Bamba lam ngay lam ci yi ba faal. noonu nga fekkee nga fay fekkee maam Mor Diarra borom Sam noonu nga fay fekkee si mbiru xabaar nga fay fekkee maam yi sëñ Mamadou Maxus mi di Cheikh Awa Balla Cheikh Sidi Mokhtar Yaba Balla si loolu li muy tegtale fekk fa sëñ Mahamadou Mamoun maam yi sëñ Lamp Mbacke mi toog kon li muy jàngale mooy sëñ Fallu dafa juboo woon ak bokkam juboo woon ak ñëpp lu botte lu gëdde lu xaste lu daqee xajoo woon ñëpp mu ko daal di Fallu taxawu nit ñi di leen dimbale màggalu Tuubaa gii li tax yàlla barke sëñ Fallu dëkk bii la ko sëñ Tuubaa woote woon ci telsa sidi 1339 wala doon 1921 sëñ Fallu ko woote Tuubaa nga nekk ko fi defal lu ñuy wax léegi màggalu Tuubaa jubóog buur jubóog baadoor jubóog jullit jubóog ku dul jullit mooy sëñ Fallu moo tax da ngay dégg jaagul sëñ Fall tiijaanul sëñ Fall naarul sëñ Fall nangam sëñ Fall nangam sëñ mooy yaatu gi nekkoon ci xajal na dégg naa bëgg dem sëñ Cheikh Assou Faye nettali ne dafa am ko ñëw la sëñ Fall dafa am concours mooy def ñu laaj ma ca téeméeri junni yow képp laa ci yàq yow képp laa ci yàq ñu ne ko kii de day wax rek mu ne lu mën a lu ma gën a amu fit man képp la yaakaar am na fa te am naa xol bu ma ko joxee kon danaa nga xam ne xàmmee na koy naxe ak kuy wax lépp waaye yaakaar la bañ yaakaar tas ndax sëñ Fallu daana wax ne fii it yaakaar ji res ji tewu kon ñu mel nii bu ñu leen di fàttaliku si jamono ak di leen defale gis di ko taxawu ñaar ci seen jikko yi rek lañ jëriñ ak dalal sunum xel bokk yi yi yi dër yëpp bari la seen ci wax pas-pas la euh, nit ñi mënuñu orienté nit ñi ci ñii ñu ko bëgg a jàpp adduna jote wala mbirum sëñ Tuubaa dara sëñ Tuubaa lu nit rëy rëy pouvoir taalibe nga mën a doon ci moom mënoo doon dara lu mooy taalibe sëñ Tuubaa adduna xaw ma luy soppi ko ak lu mën a soppi waaye du sëñ Tuubaa danañ ran danañ siyaare danañ joxe addiye danañ jublu joxe danañ jibbu danañ liggéey sëñ Tuubaa dëgg la bu fekkee ne ku liggéey jox sa sëriñ ab dof la kon ku matu sëriñ te mënul dara loo koy joxe sa bopp kenn mënulul kenn dara nag moo jëkk di wax ñu dooru dëgg sëñ nee na waa suuf xam nañ fan waa kaw xam nañ fan malaaka yi bi ñu bi amee xam nañ sa ngeen fan ku sa kook mënut da sa kook mënut waaye kaman man nag assumer les responsabilités li nu yaakaar dara lu koy yokkatal amut dara lu ñu ci war a béy ji amut dara lu ñu ci war a jëlee ci ginnaaw amut ak murit doy caaxaan joxe sa alal sëñ Tuubaa ko digle xit ma sëñ Tuubaa digle سنتوا من وغاية التلخيم وقت شيقك وجعله سيدا وهبله خيرة وقت الحوائج له مع الشاب البسل والخدمة إن استطعت سنتوا من الناي ورمى البنجي أهدف السبسري يوسف سنة لتجد يصلوا بعد ذلك وجوه لفجي تيسف سيرين في البسل والخدمة أب مورت ورد يوك ما ورد يوك الجوك سيرين لو سنتوا من ما تقول ديكي كنت وقمو يدوخ ديكي يخو kaddu gu Sëñ Tuubaa raay day dox ngeer gu Sëñ Tuubaa laal day dox nga gis Bamba nga ne Cheikh Ibra Fall ba jibloon muy dox kooku luy taxaw du ay dugg Sëñ Tuubaa ndax wasala bi xatal jasa ula mu xalladan bi xadri zatik la Sëriñ Tuubaa la war ak kubar 1895 bu Sëñ Tuubaa di tàllal loxo naan laa yaxtashi qadimahu sawlata man yasulu bi darari fi kulli zaman comme Dieu si ñëwul comme fetal ñëwul nit ñi aqul wala yémi ma ci at bu ko tey jii yàlla tasaareel ko mu daan da si tuwa parce que daan génnoo parce que daan kat tappi parce que am defet amul romance ku mos a daan defet fat du ko yëngu mooy mbir mi mas a daan ñëpp te kenn su ko te combat bi moom dama wax ana Leclerc ana Merlet ana San Luis Mutier ana ñu luñ fi jeexantal tey amul ay monument la ñuy symbologie tey jii la jabaru si tuwa gën a taxaw gën a wér loolu nag ku ko xamul da ngay jàpp ne ay pexe la wala ay xalaat luy pexe duy xalaat bu fekkee da ngeen ne njabootu Serigne Touba gi du ñu liggéey wala ñu ne njabootu Serigne Touba gi dana nangam ah ak seen maam gën a ñàkk jom fopp ndax 1895 bi tubaab bi ne ku ne laa ilaaha illallaah dox sa baat kenn képp ko jóg taxaw muy Xaadimu Rasuul kasiirul jihaad tabriirul jaasi yor fatal indi u jaahili bul uluma bi tuqaa abdul qadiman wal muhaymin toppal tey assis bi adduna bi yëpp demal ba naan si demal Bordeaux tey la tubaab yi gën a bokk dërëf dërëf ji xaw génn kilifa ji digle ñuy def tere ñuy bàyyi toog ci kaw toog suuf bu ñu amoon lu ñaaw liñ tuddee Serigne Touba xas nañ ko ëpp teg seen bët wala salimun min al afati jumlatiha wa maam ni ko waxtaan bi ma imaani ji mës a jaar doom yi bàyyi te nee na amul benn tax sero fat bu caabul ba amul tax ñu xam tan bi mel ni la mel lépp mu mel ku mën a doon da nga dégg ancien nangam da nga daan dégg ñu ne da ngay dégg ñu ne belees ak Serigne Touba wala nga dégg ñu ne Senghor ak Sëñ Fallu wala nga dégg ñu ne diw ak seen diw ginnaaw adduna bu ne se ku ne nangam ancien da cay am lu am kër Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa bàyyiwul ak ak gi des koy ram di ko siyaare di ko màggal di ko sotti gët di ko rang la gën a mag di ko def te duñ dellu Sëriñ Tuubaa dafa liggéeyee mbir ba yàlla fay ajru lazi maa indahu laa yanfadu wasala lii wa maxtalaahu nafadu moo tax ku wàcc sa façon sotti ko sànq sa pas-pas ba ci gox adduna jëm laa tashtari dunya bi uxra yaa man baax na mu ren bii du jàpp sa yéen ak murid de su ko jéem a organisé waat di ko defal civilisation déedéet murid gi nii la war a doxe ñu xam ne colonel yi xam ne commandant xam ne général xam ne officier xam ne gëm yi ko war a toog suuf ci kaw war a fokk mbaxana fokk mbaxana ndax soldat bi ba ko jiitu ba ko séenee doo Cheikh Ibrahima Fall nee na ku adduna fal dañ lay maajal ku sëriñ ku yàlla fal la dañ lay sukkal loolu moo mën a béy bu ñëpp deewoon ba fi sëriñ Tuubaa képp ak ñooñu li bëgg am bu ko mën a gàllankoor am jumaa ji ni ko sëñ sa tàmbale télé yi daf yi dafa def ay triant sëñ Mour sëñ Mourou sa si dagg contrat bi jox ko ñeneen ñu komb gi sëñ Mourou Moustapha ca kaw keroog Cheikh Moustapha moo wucc lan la ko juge bi wax moo du Moustapha benn baat lañ la may man ngaa fay wala mënoo fay Cheikh Moustapha ne du ma fay tey du ma fay ëllëg ba mu génnee mag ñi na tee ngaa fay tubaab boobu ni mu sonale sa bàyyi ak fi mu ko yóbbu yëpp Cheikh Moustapha na sama benn tànk bi moo ko déggee camarade wallu wallu ma France yëpp mënuñu ko yëgal te ñaar yëpp la def loolu da ngay laaj diggante télé yi la ci sëñ Fall waxoon ak la xew mbirum sëñ Tuubaa bi jaxal ñu convoqué waat Serigne Modou Moustapha ak njabootu Serigne Touba ñëpp ndax keroog góorgóorlu na leen autorisation bi ñu joxoon sëñ Touba bi mu jëlee ab ñu andi ko autorisation bi provisoire rek la woon léegi dañoo bëgg a jëli Serigne Touba fa mu nekk te booba denc leen borom njabootu sëñ Touba gi baral Cheikh Moustapha mën naa am de waaye du ma ko fekk kum jur du ko fekk ku ko yaakaar du ko fekk ku dem jur te bëgg lu baax du ko fekk. laajal ñu doon topp si biir longue di jéem loolu lekkal keroog bi suñ tubaab ñëwee njëriñ tubaab yi dañoo defar bakk bu war a départ ñu kose ci tubaabu Moussa bi di xaar bu suñ tubaab wàccee ñu ñëw jël si ko njëriñ yóbbu ko bakk ba ba mu départ keroog ba mu si tey bi kenn xamul fu mu teer dans suuf Serigne Touba bi yàlla ko doon nee na woon xam nga dañuy wax ñaar di bàyyi benn dañuy wax benn bàyyi ñaar la ñu bàyyi benn dafa génn fii dajale bokk yi dajale tali bi ne sama bokk yi sama taalibe yi rus leen sama mbokk yi sama mbokk yi moytu leen ma ci sama taalibe yi waaye dafa génnaat beneen bis ne na ngeen ma moytu ci sama mbokk yi ndax sama mbokk yi ku leen defal njëkk xaw ma ñu mën a fay xaw ma mënuñoo fay xaw ma ñu nar a fay xaw ma mënuñoo fay bu ma leen di fayal duñ ko yëg waaye sama mbokk yi ku leen defal safara xaw ma ñu mën a fay xaw ma mënuñoo fay xaw ma ñu mën a baale xaw ma mënuñoo baale bu ma leen di fay duñ ko yëg wala ci Kajoor ak Bawol ku la neex tund wu neex foo ko dégg ku ne maanaam toroxal sa sëñ Tuubaa wala may gàcceel bokk sëñ Tuubaa ñu ne léegi ñuy séen di ko moom moo ko moom ba njabootam ko moom foo fi dégg parce que topp ko topp njabootam maanaam ngi soo na sëñ Tuubaa di dara baa moom jëf ko sëñ Tuubaa baa moom jëf lu baax ba dégg jëf te ba ab dëntu ko génn ci ku lay xam na ne xilli yaa ko man nawet jee waral ñu dendandoo waaye noonu la ku nopp gay nopp seetal ba ba dàq ñay ko su féeroo ki ñay dàq ñàkk a tawee yàlla gis na féeroo ki mooy gouverneur yi ak soldat yi xam nañ ne baaxal yi commandant yi ak kàngam yi xam nañ ne bis Tuuba dëgg la tubaab boo leen laajee ku si Tuuba xam fukki laaj fukki tontu ak ñeent la wax sëñ Modou Xëri Bousso moom sëñ ma Samba Fëri fi njëriñ mu ne ko di ko wargaal moom sëñ bi na ko dama la bëgg nee na ab cur ki njëriñ la sëñ Tuubaa sol bu baaxoon yor ba xam ne curi jëriñ jiitul dara di ko wargaal na ko ma nekk leen leneen sama diggante ak nasaraan te la koy nekk ne ko am na bis tubaab bi dafa ñëw ne ma yaa ngi seen garab yee sëñ bi nee ma na ko waaw. mu ne ma juróom-ñetti wàllu yu lañ fay suul leen ko sama maam leen fay te ñooñu seen daraja yeggoon na ci jant bi xëy bay feex lu fi xew xam ne yaa ngi war a juróom-ñetteel sëñ Tuubaa na ko mag nga xam ma ñee te doo sa maam te ñee du ñu ma mu ne bu timisee na nga ñëw bu fa waxtu na nga ñëw fekke si ca faji defe seen boo yi ba fajar jot ñoo jël si seen biñ ñëwee sëriñ bi nee na ma romb jëmm ju war a fas mu ne man la jibril alayhi a wasalaam ahmadu tubaab yi dañoo bëgg boo demee fa ñuy entraînement yi ñu fël la ci seen fas yi wala ñu fetal la ñu fël la wala ñu fetal la daan na ko man mii nag yàllaa ñu jox ndigal ñu daf lu métti nit ñu ñëw aar la yow suñu tubaab taxaw keroog la tubaab yi seen métal waxal seen bopp sëriñ tubaab na ko ñii ñu mu mu ne ko sama ñoña ñu ne ko naka ñu signé la doo fayanteel nguuru France يقول هو لا أحد الله سمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفدا ينقى الله من يوسف يبط يما إلى نيوك تريسا سفلين نيخ أو فلين نيخ كرلي يما سير دي لدولين نيخ كتب في ريوم من أبو سمان يبط ما يكون أشهر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رابط اللي مي كان لك ما يسير انتوا لا إكاها سير انتوا لا إكاها سير انتوا لا إكاها فنخ Thank you. nañu ñëw jox ko addi sëñ Touba ngir sëñ Touba loolu rek laay wax bëgguma waxtaan wi dagg ndax am na solo waaye nañ ñëw ngir sëñ Touba sëñ Gana yàlla na gudd fan tawee waaw nañ ñëw ngir jëmmi sëñ Touba yàlla na nga gudd fan tawee ci barket si Ahmadul Xadim yàlla na nga gudd fan nañ ñëw jërëjëf jërëjëf.

sëñ Bamba. xam na jëm ci gëneel lu muy wuti xanaa dox na yow yaa saytu mbooleem lu muy wuti waaw jëm ci gëneel lu muy wuti xanaa dox na yow yaa saytu mbooleem lu muy wuti lu muy wuti nee na ñoom ñii sant Mbàkke la gënoon a war ci moom nee na lu sëriñ Tubaa teral teral Gana Messere mii toog bu ñu gisee bu ñu gisee sumi mbaxanaam toog ci suuf nee na lii rek mu def firndeel na ko nee na kon amul lu ñu war amul lu ko war ci sëriñ Tubaa wàcc ñu wala ñun sax ñun Mbàkke Mbàkke la gën a war ci moom nee na xamal nag mbooloo mi ku bañ sëñ Gana Messere mii sëñ Tuubaa nga ko bañee ñun nag ñoo war am fulla lànk loolu yëkkati ko yëkkati ko ñaanal ko ñaanal ko jàppale ko jàppale ko teeg ay tànkam ndax ku ko jekku nee nag sëñ bii ku ko jekku sëñ Gana mi ku ko jekku ah jekku nga nag taalibeb sëñ nee na jekku nga nag su boobaa taalibeb sëriñ Bamba. te bu ñu deful suñuy responsabilité. nee na bu ñu deful suñuy responsabilité. sëñ Touba dana ko def sëñ Touba dana ko def moom. kon kon ma bëgg nag.

jërëjëf léegi ci kanam tuuti mu gën a yaatu léegi waa kër Cheikh faal yi dafa am rek lu ñu ci bëgg a sànni waa kër Cheikh Rafaal yi sëñ Lamp dafa am lu ñu ci bëgg sànni ndax yéen wax ngeen ba pare waa kër Cheikh faal rek di njabootu Sëriñ Touba nee na ñu ngi kiy jégalu bu baax nee na dafa fekk ni loo xam ne lii mënta ñàkk la nee na ki ñu fi tax a teew nee na sëñ Amdi Khady Fall mu Chérif Assane ki ndigalal sëñ Khalifa Fall mu baax mi ki ndigalal sëñ di mu sëñ Ousmane mii nee na lu mat ñetti at ci ndogu yi day jënd ndog yu mag ndog nag wu mag ajjuma ju njëkk ji yónnee ko sëriñ bi nee na mbokki taalibe yi ñi nga xam ne ñoom ca kër ga ci matt bi di ay wóllëreem nee na mu sëñ xaadim mii ñoom ñëpp nee na mu jàpp suñu jëmm ji bañ xamante ba léegi mos a ñëw si gis sëñ am di xat yi ma sa ci ndogu yi waaye àjjuma ju ne li njëkk ci weeru koor dina jël àddiyaam moom sëñ colonel muy nag wu mag jox ko sëriñ bi nee na loolu nag bu def lu baax war nañ ko koo wax colonel Faye nee na am na ñoo xam ne dañ koy def indil ko seen bopp moom colonel Ousmane fay nag buy indi nag kenn doo ko sëñ Lamp da koy yónnee waaye du ñëw sax sëñ am di xamu ko nee na kenn xamu ko ci njabootu sëñ am di xadi nee na kollëreem ci ñoom la jaar nee na ak mbokki taalibe yi nee na kon ñu ngi sant ñëpp sëñ maanaam dafa mi ñu àndal ak sëriñ jiili ñu ñaanal ko te xam ne ki jëmmi sëriñ bi lañ fi ñëwee nee na sa borom yàggal fi colonel Ousmane Faye te wéral ko nee na amuñu lu sëñ am di xat amuñu lu may ndogo yi nee na ku ci def lu baax danañ la ñaanal danañ la téye nguñu màggal sëñ bi màggal cantul ñaar yi rek kay mbiram ndigal sëñ touba rek neena yaakaar ñepp te lañ koy fekk mi ngi ñaan sëñ touba ak Cheikh Ibra li tax muy jëf barke Chérif Assane yalla ko Cheikh Ibra fay dina ngeen jëf wala nekkoon ko ci ñoom. ma nekkon rek ci Adja makalu me ak Adja xudje ñi nga xam ñoo accompagné colonel Ousmane fay mi nga xam dara yàquwul. kon dama wax sànq ni li ngeen am ak colonel yal na ko yàlla barkeel ngeen fekk lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gërëm baax daam ci sama doom kontaan nañ ci moom bu baax a baax di gërëm ñu ne ci kaw ñëpp Ahmed Diop sama xarit sama doomi ndey yow sama doomi ndey nga sëñ nàmp boolewuñu waaye sëñ nàmp dana seere maa ngi koy gërëm barke boobu Tuubaa barke ku ma teg place la koo ku may dimb ko ni ko sëñ abib mii. sëñ Habib mii. bu fi ñëwee. bu fi ñëwee. jëmmi sëñ Fallou. jëmmi sëñ Fallou la fi ñëwee. te loolu buñ ko waxee. jërëjëf. jërëjëf Mbacke. ñu ngi yeesal suñu lépp. ñu ngi yeesal suñu lépp. ci sëñ Fallou ci sëñ Fallou. di ko di jaar ci yow. di ko jaar ci yow. Ousmane a ngi sant bu baax a ngi sant bu baax. di gërëm di gërëm. gis nañ ni mu ko téye. gis nañ ni ko sëñ Fallou téye. ak ni mu ko njabootee ak ni mu ko njabootee. ak ni mu ko boole ci boppam. ak ni mu ko boole ci boppam. ak ni mu ko boole ci boppam nee na ak ni mu ko boole loolu gis nañ ko bu baax nee loolu gis nañ ko bu baax. ñoo ngi ko sant. ñu ngi ko euh, ko. téye na ko. njabootoo na ko. njabootoo na ko. te na ko ci boppam na ko ci boppam. loolu man xam naa ci. nee na sëñ Lamp xam na ci dara. Euh, euh, bu bu demee wutoon noonu. bu demee wutoon noonu nag. di di dina ma jaaxal lool. nee na kon dina ko jaaxal lool. yow yow xam nga. nee na yow xam nga sëñ Abibu. moom sëñ Lamp xam na. kon nag nee ko jërëjëf. kon nag nee ko jërëjëf rek. xolu Ousmane it sedd na. xolu Ousmane it sedd na bu baax. sëriñ Fallou nag da doon wax ni. sëriñ Fallou mii toog nag moom sëñ Abo Mbacke moom sëriñ Fallou da doon wax ni. di di baalu ak euh, Mouhamed Niang. nee na mi ngi baalu ak Mouhamed Niang mi ñu annoncé woon léegi. ndax moo moo waroon a jël. nee na ndax moom Mouhamed Niang moo waroon a jël. waaye laataa sëñ Gana di wax sax. waaye laataa sëñ Gana di wax sax. Euh, kaddu yi suñu kilifa. nee na kaddu yi suñu kilifa. di di sëriñ Abo Mbacke. moo waroon a jiitu lépp waaye ci mbaaxaayug sëriñ bi. waaye nag ci Galas mi toog. moom moo tax mu bàyyi woon. moo tax mu bàyyi woon. Euh, ñu ji ñu jiital waxtaani sëñ Touba. ñu jiital waxtaani sëñ Touba. ngir ngir mën a taataan ca barke yooya. ngir mën a taataan ngir lu ca toppati. ngir lu ca toppati rek. saa borom wasal ca barke. saa borom wasal ca barke. kon dañuy jox kàddu gi. léegi dañuy jox kàddu gi. Eh, suñu suñu xarit. suñu doomi baay. sëriñ Cheikh Oumy Mbacke. nee na sëriñ Lamp leen mi ngi seere kat sëñ Cheikh bi mi ku baax la. maa ci xam dara. ak mbaax. nee ak mbaax. mi ngi tàmbalee ci nite. mi ngi tàmbalee ci nite. Euh, nit nit lu mu baax baax. nee na nit lu mu baax baax. te nitewul te nitewul. dana def yëfi dof yàq mbaax. sëriñ Sam Lamp nee na su boobaa dana def yëfi dof ba yàq mbaax ga. waaye moom ak mbaaxam. waaye nag sëñ Cheikh mi mii ak mbaaxam. nite ci jiitu. nee na nite moo ci jiitu. yàlla na ko yàlla dimbale. yàlla ko yàlla dimbale. ñun nag ñëpp kàddu gi benn la. nee na ñoom nag ñëpp kàddu gi benn la. ndax sëñ Modou Mamoun ay ndax sëñ Modou Mamoun ay sëñ Fallou. waaw waaw sëñ Fallou sëñ Fallou sëñ Modou Mamoun. ay da di ne comme yàgg nañoo jël micro bi wax fii fekkewaat ko ay déwén déwén moo waral ñu jël micro bi yàlla nañ ko fekk ay déwén déwén sëñ Lamp yow sa jikko rek ak sa melokaan rek moo ngi wax ndax euh, baax moom ki xam ak baax. ki baax rek mooy xam ak baax waaye ki mën laneen mooy xam laneen euh, bii ñëw rek mag Sëñ Fallu mii sama mag ju baax ji ñi ngi waxtaane ci yow baax gi ak woyof gi ak yaatal gi ak bëggu mbokk te mun koo dundal bu ñu gisee dañ xam ne ay bokk yu gëj a gise gise nañ te mu rafet lool waaye nag noonu la sunu maam yi àndi woon euh, euh, Cheikh Mor Fadal ak sëñ ak maam Cheikh maam ne xam ne seen diggante rawatina nag nag sëñ Modou Mamoun ak Cheikh Mor Fadal ba ci sa waajur sëñ Modou Rokhaya euh, kon nii rek nga mën a mel wax dëgg yàlla yow moom am amel nga amel nañ la cant amel nañ la ñaan li nga seede lépp ci yow la nekk wallahi ku lay bëgg lañ mbokk mbokk mu mbokk nga mbokk mu baax nga lool foo toogit lu lu rafet nga seede ci ñun kon ñu ngi lay sant bu baax mbakki baal di la jox sa wàccuwaay di ñaan suñu borom guddal soo fan ba li ngay yéenee liggéeyal sëñ Touba rawatina ci gox bi tedd bii nga def ko ni nga ko bëggee ndax kenn yëbul yoon wi ci tund wii te lépp sa jëmm la kon Mbakke ñu ngi lay sant bu baax a baax sëñ euh, euh, colonel Ousmane ñoo ngi lay sant te di la nuyu te di la jox sa wàccuwaay yow moom xam nga ñu xam suñu diggante yow yàgg na te rafet na léeg-léeg nga gis diggante bu yàgg te te rafet ga man man caa bañ a am waaye suñu diggante yow moom rafet na yàgg na li li la war lépp def nga ko lépp dara desu dara waaye dañ lay bàyyi ki ki nga koy defal mu seex Ahmad Fadal mu faydal lu kawi njor man ak sëñ Fallu démb bi ñuy tàggook sëriñ bi seet na ci lu rafet rafet sëñ Moustapha yi ngi nii toog ba sëñ maam jotaay bi nag maanaam mbégte gi ma ci am mooy Cheikh Ibrahima Fall yi yëfi nekk Cheikh Ibrahima Fall jógee ko sëñ Fallu Cheikh Ibrahima Fall jógee ko sëñ maam Cheikh Anta waa ko Cheikh Ibrahima Fall yi nekk nii toog ñoom tamit jóge njaareem ñëw ak ci weeru koor ak fii ci njaareem Ousmane sa bi moom wax dëgg yàlla moom dafa ala daw mi li li ci ne ci ay ay ay ay kii man dafa bëri mënu su wax lépp sax euh, waaye xam naa ne sëñ As Mbaye mii ñu jox suñ kàddu nga xam ne dañ koo dañ ko wax li ñu bëgg a wax lépp taxañ ko ba mu bam ba mën ab taxañ joxoo ko moom dana ko taxarti te gën gaa leer ci wolof euh, su ko defee ñu ñu may ko ak diglu rek euh, sëñ sama wàjjur bu baaxoon nag sëñ Mbàkkeem sëñ Fallou amoon na yéene ñëw lool waaye yoona ko bett. mu yebal fi doomam jii di sëñ sëñ Fallu di di ab taawam nit nag fu mënta dem ba fa yebal ab taawam mel na ne kon jëmmam ñëw na moo waral ak ak toogaayam kon xam naa sëñ sëñ Asmbaay dañoo jox kàddu gi rek nga taxitul ñu li ñu bëggoon a wax lépp rek xam naa ne comme suñu làmmiñ xam naa euh, xaw xam naa taq te xol bu sedd jàpp nañu lool duñu mën a wax lépp waaye ñu ngi nuyu it sëñ Gana Messere mi fi jógee lii sëñ Lamp wax ci moom lu am solo la nit ku baax la sa bëgg sëñ Tuubaa waxam lépp sëñ Tuubaa la génnul sëriñ bi motax ma ñaanal ko legui nii dafa am ben kilifa gu maga mag go xamne ni loko ma ñaanal mas ci yalla yalla nga gudd fan mu ne yalla yalla nga wër mu ne yalla waye bo ne ko yalla bu sey non bég nan amin ñu ne suñu non moy non l'islam waye gann mi ko bañ war rek mu xon nono kon motax ma ne nañ ko ñaanal yalla bu ay nonam bég ndax ko xamne ni waxtanam lepp lépp bi la tàmbalee sëñ bi yam sëñ bi ta wax deug yalla amit kenn lol xamna na li ko def defal xamna na kan moy sëñ Tuubaa lol rek lay waxtane kon ñun ñi nga xamne dañuy tuddu tuddu bi ñun ñoo war a jóg taxaw gànna xam ne kan kan way gànna kon yàlla na ko suñu borom guddal fanam te mosul ko ci mboolem pakk-pakki jamono ak ak ak ak mboolem lu koy lor rek yàlla mën na ko jànke xasida yi nga xam ne yen yéen ay yéen yéen ay euh, euh, jànke xasida yi sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa fonk loolu ñu ngi jox seen wàccuwaay ñu tuddee sëñ Mor Gas Mbaye sëñ Moussa Mbaye ak sëñ sëñ Mor Gueye mel na ne day yóbbaale ñi ñi des ñëpp kon ñoo ngi nuyu soxna yi di nuyu ñëpp ñu fi teew ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah ليصل ربي ووجه في عنا وسر إبليس لقير بولد لك فؤادي يا إلهي أطمن كل من قصد خير فات احفظ إلهي الساهر وابة من المفاسد وصف لعتب أبدي دخولا فيما تسامن في الحال والمال مالك الزمان تبارك وتعالى آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله بقي نويلين دي نيو تيتور سي ابو البركه جوري لي كرسي محمد الفادر ديجيت الجينيو بي صاحب الفضيله سي محمد المنتخى ديكو نيانا مو گن في ياك تير نالي مو مات ليكو ني فك كو تمان تي ديو نون لاني كوي نيانا لي سيرنم دي مصطفى مو سيرن مود مو سوخنا مبند مي توغي جتاي امام سي ابراهيم فالام مو ياك في لول تير ndigal yàgg koy jógee kër sëñ Touba dugg kër sëñ Ibrahim Fall yàgg koo jëfandikoo te am kattan buñ ci jëfe di ko ñaanal sunu kilifa yi nekk ci jataay bi te toogee fi toogaayu Cheikh Ahmadul Qadim ak Cheikh Ibrahim Fall Lamp Babu Mouridine di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadunil Fadal ibnu Cheikh Abul Baraka di ci toftal mbokkam di léppam di sëriñ lamp mbakke mu sëriñ Mouhamadou Roqaya mu sëriñ Maodo Mamoum mu seex Seydil Moxtaar borom gaawal di ci toftal alhaaji seex ummi mbakke mu seex abul baraka mu seex Mouhamadou Nil Fadal ak sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbakke mu seex abul baraka muslim muhammadun il faadal waaye ak seex muhammadun il faadal mbakke mu sëriñ mbakke mu faadal ak mbooleem seeni rakk di njabootu seex abul baraka ànd nañu ak ñoom teew ñoom nag seen wormaalante day tax boo tuddee ña jiitu ña ca des dañuy am yéene dugg ci biir seeni kilifa waaye mën nañu wax ni njabootu sëriñ boo ñi ëpp teew nañ ngir pas-pasu Seydina Ousmane fay bi waaye di ñaanal sëriñ Habibullahi Mbakke mi yegg si léegi ci jataay bi di jaare mboolem ahlu xasida di ñaanal sëriñ Gana Messere Moxtaar suñ borom gëlmal seytaane ci ay mbiram ba pas-pas bi mu am ci liggéeyal sëriñ Tuubaa mottali ko sëriñ Góora Gay Maxtaar mu sëriñ Mahmud Moxtaar moom itam di communicateur traditionnel waaye di ku ber Cheikh Mamadou Nil Faadal waaye ku xam maamam it xam ni munta ñàkk a bëgg sëriñ Fallou ndax aji fat lam ku ko xam rek xam diggam ak Serigne Fallou ak bis bu mu baaxoo daan ko defal Serigne bi nag kaddu yi lottu nañ ci ngir Serigne Touba seen maam daa am mu ñu jàngal. mooy taalibe ci kanamu sëriñam dafay mel ni ab néew te néew fu mu jëm ka koy sang ko fa jëmale waaye mënut a jëmale boppam fenn waxuma di jël kàddu waaye li tax ñu ñimee yëkkati suñ kaddu dañ koy barkeeloo laa tamalu say an bi xayri waaye fal isnu sar fi xabuli sayni ndigal li rek ndax moom sëñ Tuubaa moo ni ku ndigal taxanaaje boo jógee danga dabe te dabe ba rombe lañ bëgg nag ndax inal fa'ida ala naqaydi murid yep ci pastef ak dogu rek lañ rawate kaddu gi kaddu sëriñ cheikh ummi la te munu ñu ko wootu ci kaddu ngir ay jam jamat lañu ci seen keppaar ñom sayidina usman sëriñ bi moy jotal ak cantam ci sa jëm waaye di jiital ci cant gi sëñ làmp Mbakke mi sëñ Lamp nag li mu seere ci sëñ Cheikh Oumy sëñ Cheikh Oumy seere ko ci moom ma war a am ndax jiñante ndabul teraanga ba mu toj daa gën di ko xëccoo ba mu toj te kuy ñut di ku ne da ngaa jotlewut waaye ku jotle doo xëcc ngeen maam kuy ñot di ku ne da ngaa waaye ku jotle doo xëcc moom sëriñ Moodu Roqaya way juróom Cheikh Moustapha yi may turandoom yar ko keroog ba mu koy yiwi da ko ne wàccewuma la dama la soppiloo ab liggéey demal nekkal ma fa sabaay wéyal ma fa sa tërbiya waaye wax sëriñ Moodu Maamun ni ko sama sampa taman sëriñ Mouhamadou Moustapha sama samp mag du ko fooyee rawatina gone ku dugg ci yeelam man nga fay fekk cër bii nga xam ne mooy ab cëram fekk na ca maamam ndax Cheikh Seydil Muxtaar borom gawan mo ñëkk a aw turu Cheikh ibrahim Fall Lamp muy cheikh ibrahim su cham mum maam Cheikh Anta sëñ Modou roqé jëlaat ko mom jagleel ko Cheikh ibrahim Fall Lamp Babu Mouridine te bu dee dëgg la ñu wax te yàlla tax nag secret bi moom Cheikh Ibrahima Fall ndax sëñ Moussa dañi wax nañ ni tuuti kon mu dem fekk sëriñ bi lëm mbiram ba kenn du mos ci baatil lu dul ca bis ba ñuy texe man ma feelu ko ni ko kon ak texe da dul am. ndax bu sëñ Tuubaa ñëwut woon ku ñëw da ko réccu te bu ñëwul woon ñu ñu ñee Firawna dañuy sonn ci àdduna day dem sawara te kenn du ko faj ndax ñee ga ñuy ñee Firawna mooy Firawna lijjanti ne ba addunaam jag ëllëgam kay leerut ñun nag bu du woon sëñ Tuubaa suñu àdduna du jag suñu ëllëg du jag kon ñu ñee Firawna maamam Cheikh Seydil Mokhtar it cër bu nit di am ci nit mu am ko ci sëñ Tuubaa ndax cëru góor ñett yi la jarbaat rakk dégg nga te Cheikh Seydil ak mag Cheikh Seydil Muxtaar ja nijaayi sëñ Tuuba la di rakkam di doomi bàjjanam boole koog def boppam ci sëñ ab jaam jaamaat jaam saahir ak jaamu baatin jaamu saahir ba mooy doomi nijaay ak doomi bàjjan li wolof di wax yëkk ak doomu wëllu jaamu baatin ba mooy simaamul wara asri la di lay fi yadi wa maa rumtuhu min maalikil qaada bil ani ku mu neex ak ku mu naqari boo bëggee ak boo bañee nosum bindeef yépp suñ borom a ko fayee sëñ Tuubaa mu téye ko ci tënkam ku nangu dugg ci xulubu jumlati lasina aflahu liye tawajahat war bioslo ku gàntal dugg ci xulóobu mën nam yuhibuuni ala wajinin wala yulaaqoona maarawaral baaba yàlla moo amul sago ci sëñ Tuubaa sëñ Moussa Saliou nee na sëñ boo ko tooñee bu mu ñëw it yàllaa dul muñ yàllaay fayu Cheikh Seydil Muxtaar cër bu nit di am ci sëñ mu am ko ba noppi def boppam ci sëñ ab jaam jaamaat juróom nit la ajal Makka ca ajam googee Cheikh Modou Fadal diggam ak maam Cheikh Anta jataay bii asaarut ndax Serigne Fallou bu sancee Madina mbooba maam Cheikh Anta tax te maam Cheikh Anta pas pas ba ko yóbbu Ségou sëñ Touba ko ko gaaraloon ci nekkam xamal ko ni ko na nga ñaan ma yàgg fi bur woon ak man fu tubaab bi jaar ak man dana fa jaar ak yow ba mu demee Ségou itam ma Modou Fadal moo ko fekk ba muy sàkk di ko fekk ñu ni ko foog nga am suufu Saalum soo xani da nga fay am autorisation dogo a genn mu xartu ci ba sañ ci Madina Mboobal dem fekki cheikh sayyidil Muxtaar borom gawan ci seen pas-pas ya ak dénkub sëñ Tuubaa ba ba suñu borom dogal seex Seydil Muxtaar jóge segu delusi si te loolu lépp doonoon dëlanteef sëñ Tuubaa waaye digeunte sëñ Mamadou Mamoun ak cheikh Mamadou Fadal digeunte bu yagg la bu dëgër la neena ñoom bu ñuy teewe si jataay bi day mel ni lu ñu fiy def yow lañ koy defal ndax yaa dëkk ak colonel te sallallahu alayhi wasallam sallam dañu woon bala ngeen a wut dëkkuwaay na ngeen wut dëkkandoo ba noppi kon bu yàlla dogalee ngay dëkkandoom muy ab taalibe sëñ Tuuba yor pas-pas boo xani ni sëriñ bi rek ko ñor nga yàgg a bis bi di ko at mu jot bu ñëwee nga dalal leen wax sa kaddu yu rafet yii ci ñoom wax nañ ni ñoom ñi ngi lay jaajëfal te di la sant tey ñaan ci barkeb sëriñ Mamadou roqeya ci barkeb sëriñ Mamadou Mamoun ma nga xani sëñ Touba moo wax ni kenn ku ci ne yàlla bindaale na la xalim ak bàkkaar goo xam ni sëñ Touba ko wax de nee na man ngaa am pas-pas ba yàlla damm ko waaye Mamadou Mamoun Mbacke moom yàlla da koo bindaalewul xalim ak bàkkaar kon ñi ngi ñaan ci barkeem yàlla bu la kenn ëppulee ci daaru salaam nañ seen xol sedd na ci yow seen xel dal na seen yaakaar dolli naa dëgër ndax mat ña nii rek lañu ànde woon di sant cantug seet aboo Seydina Ousmane mii ndax moom le président Abdoulaye Wade waxoon Cheikh Seydi Muxtaar ker moom jaayante daf ko ni jébbal naa la sabab adduna ak alaxira Cheikh Seydi Muxtaar ni ko wax nga ko ci sa làmmeñ ñu dégg ko ci suñ nopp boo ko jëfee ñu jàpp ko Seydina Ousmane da jaayante ak Serigne Fallou waaye jaayante wut ci aw làmmeñu kese parce que nak am ño xani xam ne bañ joxee seen bopp lañ fa gëj Cheikh ibrahim Fall Lamp amna ko ku won ci mom bam mu jébbuloo la fa paré mu faatu ñuy yott ko ko tagge ko ñu wax ko tur mu xalat xalat xamu ko ba yag mu ne xaaral ma ñew set mbiram bim duggé ci bir waxna deug dé dama dugg xol mbiram sikku tir gam sab da wërma ni man la won ci yow waaye kéro bam mu la fi gëj yoonu sëñ Tuubaa wi nak du yoonu wax jël moom yoonu jëf jël la sëñ Moussa kel dañi bës kii sëñ Moussa Kell dañuy bës kenn du ko di ngal-ngali dang koy seuf poids bo noté xam la nga am wacc sa tol mu boy di bay leew di dal dalé di dem ba jambour du taxam dugub sakka gerte kérok bisu PCB ya cay perte Seydina Ousmane nak waxul kep di gëm ak sëñ Fallou moy li sëti Cheikh Ibrahima Fall yi sédé seigne Mamadou mu sëriñ Maodo Muxtaar mu sëriñ Cheikh Awa Balla seede ko moom la sëriñ làmp mi seede ci moom ay bokkam seede ko loolu it lan nga ciy déggee mooy balewut ab ëtt bàyyi ab room ndax boo dee bale ëtt bàyyi ab ruum li ci room bi saa yoo balee ëtt bi mooy génn takkalaat ëtt bi waaye boo balee ruum ba génn cati boole ko mbaritum ëtt bi tuuri aw taqoos génn ci kër gi te moom ku rëy pas-pas la firnde ji mooy jëf na ci kër Cheikh Mamadou Nil Fadal loo xam ne taarix dootu ko fàtte loolu du luñ koy wax di ko ko neexale ndax ñii moom sëñ Touba yor seen mbir sëñ bi moom sëñ Fallou dani koo xam ne bu la dimbalee ba boole la ci boppam bis ba nga ganee jamono ngay tàmbalee tedd te lu say at gën a bari sa teraanga gën a yokk soxlawul ngay wuti dara ci kenn te kooka mooy Cheikh Mat Bamba Xaadim Rasul nga xam ne ku am jàmm moo tax teraanga ju nit am moo tax barke bu nit am moo tax kenn ku ci ne ci la sëñ Touba def ci bu dindee nga ni dum doo kenn sëñ Tuubaa rek ka fi ne kon ñoom ku ñuy wax ci yow lañuy wax ci yow yàlla rek a tax ak sëñ Tuubaa muy jëf ju ni fang joo xam ko leneen xam ko boo demee Touba Cheikh Modou Nil Fadal daa defaral sëñ Touba jumaam ji ba mel nu jumaa dootul mel ci kaw suuf nga xam ne këram biñ ko bëggee defar dañ koo tàggu ci ni comme jumaa ji defar nga ko ba mu mel nii mucc ayib lool kër gi dañ ko bëggoon a taaral ngir mu méngoog jumaa ngir taaru sëñ Tuubaa mu ni waaw loolu jar na kat waaye musta bëgg daray boppam lu dul ndamul sëñ Tuubaa di yëkkatiku rek Seydina Ousmane mii boo demee kër Cheikh Madounil Fadal buntu kër bu mucc ayib la fa def te buntu nag mooy secret bi ndax Cheikh ibrahim Fall baabul muridiin buntub yoon wi moo tax ku jariñu jariñu boo demee liggéey bu mucc ayib la fa def yamu ca de li ñuy tuddee ab fajukaay sëñ Moustapha Saliou dafa waxoon benn waay bu ab président yónni woon ca moom man naa ko wax ma di ke ñaa yónni ko ci moom mu ni ko boo demee nee ko Moustapha nee na yorum réew ak yor këram gii ñooyam képp sama kër gii ki aaye bu ma xëyoon di séddale dépasse yi kenn par kenn ku ci ne doo ca mën am lu la jariñ waaye bu ma joxee ki aaye mu duggi togg ba yàkkee ñëpp xewlu am réew ab hôpital aw yoon am ndox Moustapha Mbacke ñëpp a ci yem am soxla jaar ci dem wopp dugg hôpital faju ba wéer génn boo faatoo ñu denc la am ndox nga jëfandikoo ci te boo taxawalee luy nuru ab fajukaay nit feebar képp ñu di ko jëndal ordonnance nga def ca juróomi dërëm bu sowee faatuwut yow jot nga bakkan moom Seydina Ousmane liggéey bu rëy lay liggéey ca Madina booba muy hôpital boo xam ni boo fa demee da nga yëg ni sëñ Touba rek a ko ñor. ndax bu te ni du pas-pasam diggam ak sëñ fallu du ak jaayanteem du ak beram sëñ Fallou ak bëggam sëñ Fallou kon day dem foo xam ni dëkkub teeru lay doon bu mag mu ni fang nga xam ni booy dugg ak booy génn jàkkaarloo moom waaye moom daa yëg ni lu mu am sëriñ Fallou ko ko may nu mu mel sëriñ Fallou la mu ne man lu ma am naa ko delloo ci sëriñ Fallou loolu nag du kemaan ngir lan tuur dafay am jeexital te Seydina Ousmane yàlla dogal na mu bari woon kersa ba rus boppam. ba sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy buntam sax bu ma saan tàbbi si moom Seydina Ousmane yonent bi jekkalaat ab jotaay waaye reyoon pas-pas boo xam ni egg na ci yonent bi ne ci situation mu juroom juróom-ñaar fukki gëléem dem jox ko rasulullahi addiya ba sëñ Tuubaa wax ca ra'iya wa fii qaala nabi usman yassahu fii sab'iina alfan wa kullun haqquhu naaru juróom-ñaar fukki junni nit yoo xam gëléem gu dañ ko def junni muy juróom-ñaar fukki junni waroon dem sawara suñ borom jéggal leen ci barkeb jëf ji Ousmane jëfal rasulullahi salaay salaam waaye yemu ci baatana bi ilaa fajrin yaroomu lahu riddan min allahi sa tafdilu kubbaaru moom képp moo am tawfiixi sayduna muhammad fanaan ci jàkka fanaanee naafila ba fajar ngir ñaanal Ousmane ngërëmul yàlla akum njéggal yàlla yemu ci def ko ni sa ñaari doom yi nga ko jox sax dugalaale naa leen ci ngërëm léegi yërmande ji kon pas-pas boobee nag ak jeexit ja du hasard kon sëriñ bi dafa ni mi ngi koy seereel say bokk di ko seereel say dëkkandoo di ko seereel say wëlëre ci ni moom de li mu wax diggam ak sëñ Touba moom dëgg la moom sëñ Ousmane nee na ñoom nag amuñu lu sëñ Touba ku jàpp Cheikh Abou Baraka jàpp nga leen koo xam ne buñ la tuddee ci sëñ moo tax nee na lu ko waaye defal yow la ko yow la ko defal mooy li sëñ Lamp doon waxtaan ci sëñ Gana Messere ñoom ñooy soldaar yi sëñ Touba yoo xam ne jëm si ci sëñ Touba ñoom nga war a affronter la kon ku doon seen défense mënuñu laa fay kon sang si wax nañ ni ñi ngi ñaan ci barke Cheikh Modou Fadal te moom nag man na waay ñun ñi fi teew ñëpp kam nañ ni sëñ fallu moom jooni jooni moo ci gën a gaaw barke Cheikh Ahmadou Bamba loo jàpp ni dana jàkk soxlawul ngay woo sëñ fallu demal ba dernier moment nga defe ne affaire bi du baax nga ni ko sëñ fallu nangam ak nangam ak nangam barke qadimu rasul boo ko gisul pas-pas la ko xañ loolu nag jëggaanu moo ci kenn dégguma ko ci kenn sama bopp day na ci exemple wutuma ci seere ci kenn um mi wax ku lu baax ñor da nga ci bég ndax maam Cheikh Ibrahima Fall mu moo Modou Rokhaya maam Cheikh Ibrahima Fall mu Cheikh Abul Baraka njabootu sëriñ Amdi Khady Fall mi nga xam ni l'islam jëpp ko naw nag sëriñ di Khady moom maanaam yitte woowul di noote jëmmi sëriñ ba waaye na addiyaam di noote kër sëriñ ba ndax ndigal ginnaaw sëriñ Abdou Lahad liggéey bu mu ko doon liggéeyloo tax nag ginnaaw ndigal lu jot ci moom balaa siyaare ji xalifa général daa jébale caabi yooya kon yal na fi gën a yàgg tawér daa dajale njabootam ni leen lu ci waay bëgg baye boo nga wuti ko man lu ma am kër sëñ Tuubaa la jëm te waxu ko ciw làmmeñam waaye da koy jëfee kon Serigne Galas nee na ñu ngi ñaanal ñëpp pajuk aajo nee na jàkki Cheikh Modou Nil Fadal joojee nee na mi ngi koy majjal ci njabootu bannoo ku sopp borom taaru يا والعيال في دار السلام ربي بيان الورى مالا يا خير ربا وخير من إلي صوفيا وفي دبي فهو الذي حسن الغبايا لهبت ربي خير عافية والجرى في حياة سامية

إخوتي في الله وفي الإرادة إن الله تبارك وتعالى خلق ابن آدم من الغفلة وركب فيه الشهوة والنسيان فهو كله غفلة إلا من يرحم الله فينبه فينبهه بإرضاء بإرضائه في أوقاته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إخوتي الأعزاء نقدم إلى حضراتكم تحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di jiital ci kàddu yi ñaanal sëriñ Muntaxal Bachir sunu borom yàggal ko fi te may ko wér ak mbooleem njabootug sëriñ Touba ak ñun taalibe yépp ak donga yépp ak mbooleem julit di rafetlu kàddu yi fi jiitu te kadu kàddu abo abo baraka mi ubbi jotaayu waxtaan wi te bu mané amit dañ koy jégguloo serigne mohammed ñangmé ndax euh wax deug yalla xasida yi mo mo kawé lepp te mo gën lepp fi ñun murit waye xëy jotaayu kilifa yi rek ak sen togaay bi la sëñ Ousmane yërëm yërëm leen ci moo tax ñu ne nañu leen bàyyi ñu indi kàddu sëriñ bi ngir nu man cee jariñu te man cee dàggu itam man cee jële ab bind ba déwén te jiitu woon na sax ne sëñ Gana Messere lim fi wax ci sëñ Touba doyoon na sëkk li ci des nag ak jokkalante la ndax nit bu dee jëf ci yoonu yàlla te yàlla rekk a tax ak jëmmi sëñ Tuuba jaadu na ñu ne ko waa góor kàddu yi kon kàddu yi dara lu dul waa góor kàddu yi sëñ mooy kàddu waa góor mooy kàddu jaay jëf mooy kàddu yi gërëm naa la mooy kàddu sant naa la kon sëriñ bi ni ngeen wax ci usmaan te sëriñ bi jottali leen ko yónni leen ngeen tooge fi jëmmi sëriñ bi ñu ñi ay bokkam gis nañ lool nu ngi leen ciy sant bu baax di ci gërëm sëriñ bi ndax lu fa Ousmane jëf nit jiitu na ko fa jëf lu ko ëpp waaye wa ama bi ni'mati rabbika fa xaddis waa góor yàqul jëf rawatina mu bàyyi ko ci doomi Cheikh Mouhamed Fadil kon loolu dana doon ak dàgg ci moom ak ci ñun ak ci mboolem jullit seen jataay bi fii rek bu àndutoon ak kàddu li muy symboliser doyoon na sëkk nit ñi xam ko ndax jëf bu matee lu ci waay toftal ci wax mu doy sëkk te nit man ngaa joxe lépp waaye lépp loole ci sa jëmm la bàyyi ko waaye jëmm ku la ko indil nag deseelatu la dara kàddu yooyu li muy rafet rafet seen jëmm yi fi teew moo ko gën ci Ousmane rawatina sa rakk ju baax ji di Serigne Cheikh Oumy li lim fi daan jottali daaw ak daaw jéeg mu nekk ay kàddu yoo xam ne kàddu mën na koo gën a yàgg kàddu mën na ko yaakaar nañ ko gën a ciy ñaanal suñu waajur wa suñu aboo suñu borom te ko ak wér maam yëli nee na moom ni demul àjjana ba xam nu mu mel waaye àjjana yi àdduna mooy jubóog say bokk loolu nekk xikma bu bu am solo te jataay bi day delloo si waat taarix ndax sëñ Fallou maam Cheikh Anta si sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall dañoo bëggante woon amoon jaxasoo lool te jataay bi ku fi teew da gis taarix indiwaat na boppam ci jataay loolu nag usmaan mi mi nga xam ne moo ko waral kooku yàlla rek kanu koy fayal. kon sëñ bi loolu bokk na ci li liñ la doon feeñal ay mbégte ay bokki usmaan ne xolam sedd na ci seeday sëriñ bi waaye nu xolam sedd ci seeday sëriñ bi rek xolam sedd na ko ci seen jëmm yi ci seen jataay bii ci baas bi ñu nit suñ xol sedd na ci bu baax waruma ci woon a jël ay kàddu ndax sëñ Mahfous laa joxoon sama kàddu dama ko woone ko na ñëw na ñëw fee ca kër ga mu ñëw sama kër ma ne ko damaa bëgg bu ñu demee ma jox la sama kàddu ndax damaa amul lu dul bis bi te danga ma cee dimbali danga ma cee dimbali ku ma ci dimbali nag maag yow ñu bokk toog amatuma kàddu dama lay jox sa sama kàddu loolu laa ko waxoon waaye mu jotaat léegi ndigal ay ay kilifa yebal leen moo tax mu ñëw moo tax ma mën a jëlaat kàddu yooyu yi ma ko joxoon waaye sëriñ bi nit ku baax tey jëf lu baax sëñ tubaa dina jaarale ci yow ki kiimtaanam ak ba baatinam ndax la Seex Ibra séqoon ak sëñ Fàllu séq kook sëñ gaawaan ne sëñ Fàllu ganee woon àdduna ca Daaru Salaam loolee lépp tey jii baatin ba sëñ Tuubaa feeñal na ko ci jëmm ab taalibeem muy usmaan mii ci barab boo xam ne Daaru Salaam la tudd muy quartier Maam Cheikh Anta njabootug sëñ Fallou toog fii njabootug Cheikh Ibra toog njabootug mam Maam Cheikh toog kon ab murit bu dëggoo te baax sëñ Touba day jaarale ab baatinam ci moom te jaxasoo gi démb woon loolu li tax ma wax ko mooy ku ñuy wax sëñ Mbàkke Anta moo doonoon mag doom ju mag ci sëñ Mor Anta Sali moom moo jëloon soxna suñuy wax soxna jature ba mu jëlee soxna jature soxna jature di sëy si ànd ak rakkam jum bokkal ndey ak muy maam buri mbàkke bi mu ñëwee ñu def fi diggante su gàtt mu xool maam buri gis wàllu yu ci biiram mu woo sëñ tuba mu ñëw mu ko topp kii topp sama soxna si rakkam ji daa war a jur te yow laa gis ci ku mën a jur kon bindal ab kaamil jox ma ma rafaatale la ko sëriñ Tuubaa bind ab kaamil jox ko sëñ Mbàkke Anta sëñ Mbàkke Anta jàpp dat bu sori ne ko buñ ca àggee danaa la ko jox baataa ñuy àgg foofa sëñ Mbàkke Anta génn àdduna bi mu génnee àdduna bi mu liggéeyee moom soxna ja Ture ba liggéey ba mat mag ña ne sëriñ Tuuba soxna si yow lañ koy dénk mu daal di jël soxna ja Ture daal di woo maam Cheikh ne ko sama ji sañ Mbàkke Anta te ngeen bokk ndey ak baay dafa am lu ma waxoon ci rakkam ji di maam Mburi dane moom day jur wàlliyu amoon yéene nag joxoon ma ko ba ma dugaloon cib kaamil kon demal bind ab kaamil joxaat ma ko maam Cheikh Anta nag bu fekkee ne sama bëgg la de jëru ko bu fekkee ne sa bëgg la nag am nay charte mu ne ko sama bëgg la mu ko aw bu sa mii jur sa sa sëñ Fallu day lu tuut te wéet lool ci ci da Daaru Salaam charte bi mooy boo ma ko mënee jox moom soxna si te boole ko soxna aw bu sa mu di la liggéeyal de nangu naa bu dul lool nag jërul nga di ko def mu ko nangul nak la mu jël mam buri momé jox ko mam Cheikh Anta mu tawlo ci Cheikh Mamoun al mahsoum min az zunub ki seigne touba ne moy ñak bakkar ci 1888 ñen ñi ne 89 ci le Cheikh mohammed Fadil fe. ndax bu mu jumul 1886 ci lañ sañ Euh, am na ñuy wax sax naan jotu faa gane àdduna waaye moom ndeyu mbilli gi moo ko nettalil boppam ne falaa gane àdduna ba ñu jógee Daaru Salaam di sañc Tuuba fi jumaa ji nekk tey moo nekkoon kër gu mag ga fa la sëñ Modou Mamoun gane àdduna ci néegub soxna Awa Bousso fa soxna buri ga amee gan muy sëñ Modou Mamoun soxna aw busa sa maam moo jël ab këll dégg nga euh, euh, euh, soxna soxna soxna jëture teg ci ay xobi yi poftan teg ci mbàjj teg ci sëñ Modou Mamoun ñu indil ko sëriñ Touba sëñ Touba jël ko teg ko ci kawlal bi toog ci suuf bind toqantal fekk ko ci kawlal bi xool ko kon jaxaso señ señ Modou Mamoun ak señ fallu yag na lol ta ak bok lu mata fonkol lolé di dox ba bi tubaab bi téyee señ Touba khadim rasoul kenn ko sante Mbàkke fekk ku fa kudul mam cheikhanta borom gawan ba muy dem amut lum maam ah. mm-hmm. mm-hmm. sëñ Mourou Mamoune la mu jiitu solo sëñ Mourou Mamoune see Cheikh Mor mm-hmm. njëkkoon naa am am sëñ Mourou Mamoune mu noppalu mu tuddewaat ko mii fi nekk ñaari sëñ Mourou Mamoune suñu Fall na ko loolu kon ngir ngir dëggal wax sëñ sëñ sëñ làmp mii sëñ Mourou Mamoune moomu moo ko sëñ Cheikh Oumy mi ma tuddee ñu ma kon doon jàng ci àll ba mm. sëñ Modou Mamoun foofu la ko suñ borom jëlee mm. wax nañ ne bi ñëw sëñ Cheikh mi mi ma tuddee mm. moom moo ko indi ba ba si sëñ Fall ci ko tuddee waate sëñ Modou Mamoun fi nekk kon ñoom seen kóllëre yàgg na ndax tudde nit doom mu jiitu ji ngu tuddewaat ko kaneen loolu yàgg jàpp naa ne kóllëre mënut a wees loolu te loolu amul na ci moo sëñ Modou Mamoun ak Cheikh Fall googu kóllëre kon sëñ bi yàgg na lool fii ma toog maa ngi fekk leetar ñaari leetaru sëriñ fal benn bi bi muy defar jumaa ji dafa ne sëñ Modou Mamoun te kat àddiya nii mu mel melutoon noonu nii mu mel sëñ Modou Mamoun bokk na ci ñi ko indi ci yoonu murit bu njëkk yoonu murit kenn daawu ko wax communauté mouridisme lañ doon wax bu ngeen seetloo sengoor ci ay discours am yàggut danaan communauté mouridisme ca jamono yooya dañ daan joxe àddiya teg ci ay charte ki fi nekk danaan nangam la bëgg a liggéey ñu wax ko jaboot gépp ñu ñëw ñu taxawal ab commission ne ca loola la jëm ne ko boo demee jox ko sëñ Fall almet googee la muy firndeel mooy bu la neexee lakkal amul chart foo koy dugal ak foo ko dul dugal suñu yoon nekku ci ñooñu ay mag lan woon yoo xam ne yoon wi rekk a leen ñoroon jëmmi nit ñoru leen woon sëñ tubaa da leen a defaroon ngir yoon wi yoon wi rekk a leen leen ñoroon waaye kenn ku ci nekkit bala yoon wi ñoree sëñ tubaa fàggul na la sa yëfi bopp loo yoo xam ne kenn fekkul la ca te melu ni kenn ndax sëñ Fàllu fu jum fu màggalu tubaa àgg mooma waaye sëñ Tuubaa faye na ko kazu rajab sëñ Modou Mamoun ma ca jàppoon ànd ak moom liggéey ba fu yoonu murit àgg mooma waaye sëriñ Touba faye na ko mooy kenn ci Daaru Salaam gu moom lépp te kenn melut ni moom te moom la njabootu sëñ Touba gépp di waxal te loolu du dañ ba ila miti kon nag bu lool lépp amee yàlla jaar ko ci jëmm ji ngir delloo si waa démb kon usmaan war na xam ne kon sëñ Touba xam na ko ndax sëñ tubaa du xam jëmm jëf lay xam sëñ Tuubaa jëmm du ko xam jëf lay xam te xam na jëfi colonel usmaan la mu def ca sëñ Abul Baraka def ko ca sëñ Amdi Xadi ba njabootug maam Seera Faal gii jëf rek mooy li am solo euh, sunu mbokkum taalibe wax na ko ne ke kenn du wax ci yoonu murit ba am la nga waaye nag dangay jëf rek jëf rek moom moo fi ma may tey itam nag la maam Seer Faal waxoon yooru kurus di ngunum ngunumee ko julli baax na loolu lépp ay wax la waaye nag yàlla du fay wax di bàyyi jëf waaw te xalaxal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kon la ñuy seet du ay wax jëf la lañuy rawantee du ay wax jëf la ku la dàq jëf moo la gën te bu ngeen xeexee mu duma te du nekk sa morom kon ñi fi teew jël loxoom ma continuer di dund waaye yëpp moo gën a kawe lépp dina am ñoo xam ne maag ñoom ñoo bokk benn koñ benn quartier bokk dend ay kër Ousmane nekk ba Ndakaaru li may gis Ousmane duma ko gis ñoom ñooñ amul benn semaine benn semaine bu ma dul woo wala mu vocal ma mbaa woo ko mbaa vocal faw mu xam ci li ma nekk ma xam ci li li mu nekk joxe nak man na baña daj waaye yit man na daj luy bax bax bax bax yegge ko raw te du xeebal kenn soxla du becc ngil kenn Ousmane xeebul kenn tayit dang koy nax sax mu nangu nga diko nax mu bayila ci nax yi ànd ak yow ci nga diko nax amu ci benn jafe jafe-jafe yow waxal li nga bëgg rek kon nag nit bu melee noonu day neex a sago day neex a xaritoo te day neex a tiitaroo ku rafet jikko la itam du wax lu mu dul def du wor du wax lu mu narut te doo ko gis ci ak manki wala ak ñàkk fayda wala wala lu matati loolu nag bu ni nit melee mën naa am boo koy wax danga naan na ko yàlla def la bu la neexee sax ni ni ko yàlla def waaye li am solo mooy yow mi wax xam nga ne li ngay wax moom dëgg la te ñi ngay waxal xam nañ ne li ngay wax ci moom itam dëgg la rus naa ci sama àdduna waxal nit lu du dëgg ku yàlla bind mënu koo am am ci ma waaye lii mu mel yàlla dimbale la sa xariti démb ya mooy sa xariti tey ci moom laa ko gis amul ben mbokam mu mu xeeb wala mo garam place bam don doon toog bu dikkatee njaareem fa lay dellu toog Amadou ana Amadou ñoom Amadou ngi nii ak ak Alpha xariti dembam yi ñoo ngi nii ñoo nekkaat ay ta tam tey bu reeree ba noppi seeni kër seen buntu kër lay dem toog ak ñoom loolu nag mooy dëgg dëgg ndimbalu sunu borom sunu borom jox la sutura ñu bari xam naa leen bu leen suñu borom joxee sutura dañuy am xarit yu bees àndandoo yu bees waaye moom ku ñëw mu waayoog yow la nga bëgg mu defal la ko waaye nag mang ca lam war a nekk ànd ak ñam war a àndal di dox lam war a dox te lu ngeen seq ku ko xam yow yaa ko wax rakkam jii di aram fay lim koy jege jege jege jege Ousmane dina jëf ak yow lu aram dul yëg du càgginu ni lu mu defal nit dem wax koy bokkam melut noonu noonu kon kooku sëñ bi lu ñu gën a mën a sot ci moom ci ñaanal ko yàlla ci yàlla dëgëral ko ci yàlla kàttanal ko ci yàlla dooleel ko yàlla yokk itam ay maqaamaam lu ñu ci man ñu ñu def ko mu mel ni nag yoonu murit tey jii jataay bii ñu toog rek war naa am ko koo xam ne doo ab sëriñ sa baay doo ab sëriñ sa maam seexaluñu waaye tey jii leer na ko ne moom sëñ Touba ngi ci moom ndax xësiida yaa nga ne nee toog ñee ñépp seeni dënn day riir ki xësiida kon xësiidaa nga nee toog ñooñ alxuraan a ngi nii toog ma ànd ak ñoom ñu yendoo jàngi kaamil njabootu Serigne Touba ngi nii toog njabootu maam Seera Faal ngi nii toog man seenu donga maa ngi nii kon yoonu murit ah <laughs> kon yoonu murit mu mu moo daje fii tey te kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk sàkk lu ko neex indiwu la fi loo seq ak moom lu wér moo la fi indi gis nga aduna ak mbax rek fi am solo ak mbax moy li am solo te Ousmane wax deug yalla jikom dafa rafet te Ousmane dafa bax bax deug la la def Ousmane waxuma la sax mi nit gi rek ay détails ak yoy sax du ci dugg même bu dara naree am sax nan yi mom biru ki la romb ko ja ja jàll tay bu fekkone nit day defante wala day kon kenn waxatu ko waaye ñépp la ëmb ñépp la njaboote ñépp la téye bawul kenn ku ci nekk may na la ci boppam ba nga yaakaar ne yow yaay kiyam te fekke ne nag ak ak mbaaxam rek rek la kon nanu maase ñaanal ko yàlla daal mu yàgg fi te it yàlla gën koo dëgëral fa mu nekk te yàlla yokk itam ay maqaamam te yoonu murit nag dañuy def saa yoon amee mbër bu ab kenn jógee fële xeex ko néewal ko doole ñépp ne tekk gis nga nañu am full ñun murid yi ci suñ bopp ku fi nekkati di jëfal sëñ tuubaa ca fa nga nekk buñ la xeexee na murid yépp taxaw xeexle la man gis naa fi ci yoonu murid ay nit ñu bari dañuy jëf lu baax ci yoonu murit te buñ leen néewalee doole ñépp ne tekk loolu rafetut nañu jàpp ci baatin xeexle ko ñaanal ko dompat sax baax na Euh, lii yàlla na yàgg te yàlla na sax xëñ na teraanga yu yu yu yu yu yu fees bët ba xol sedd sax moo waral ñu defaale ci cant gi waaye la ca doonoon cosaan mooy al infaq mooy al infaq fi ay ndogu arama ngi nii toog ba ñuy soog a door bis bi dañ ne woon dañuy toggi ndog dañuy toggi ndog kon sëñ bi nga xam ne laataa biis bii di am lépp loo xamante ne ni lu baax la lu lu usmaan ak ak i bokkam war a def euh, euh, euh, du ma ne sax war a defal yàlla waaye jàpp nañ ne war nañ koo jëf ngir d'abord ngir sàkkoo ko ngërëmal yàlla rek def nañu jaamu yàlla to topp yàlla ci ay ndigalam bàyyi tereem jaamu yàlla ci dimbale jaami yàlla yi ndey fi tey jii koñ bi mbooleem ku dëkk ci koñ bi wala fu yaatoo yaatu la nga ndogoo Ousmane la ko jox loolu nag lu lu am solo la te tayit eh, sama mam seigne Modou mamou da daan wax ni wah Touba dañoo yar ci ci ndab da ne ndab nak dana tax a gis nga nit man na bañu julli bañ misal mi rek ni nii waa kër Cheikh xam nga ne se ñoom du du se sedd njël ñun ñi jóg njël di japp bay bëgg de di yek sedd bi ñom ñom seen yoon ku ci waye ku gën ku gën dara warulu lu dut la sëñ Modou Mamoun waxoon ne sëñ bi dañoo yar ci ndab ndab dana tax a dabe gis nga boo bëggee dab gaa yu baax yi mais sëñ sëñ Béthio Cheikh Béthio cu cu cu cu nañu ni togg joxe kenn dàq ko ko fu mu àgg ci àddunaam joxew ñama ku fa yóbbu ak ngërmal sëñ Saliou kon nag yëf yi foofu rek la nekk te Ousmane it yàlla dimbali na ko mu teel a xam loolu di ci góor góorgóorlu kimtu laay kàttanam yàlla na ko suñ borom doolee jàppale te yàlla na ko yàlla doolee dëgëral en tout cas sëñ Touba sant na ko ndax nañ sëñ Touba taalibe yi itam sant nañ ko ñooñ xasiide yii it sëñ Moustapha taxaw na fi léegi te Modou Galas Mbaye ak sama waay bopp je sëñ mu sëñ sëñ Mouhamed ñaa ngi nii toog at mu jot mu teew fii te nu ko Ousmane def ak nu mu def Ousmane rek rek a tax kon Mouhamed ñoo ngi lay nuyu bu baax te di la ziyaar tey jéggalu dagg gi ñu la dagg da danaa la déglu nag insha allah taalibe yi itam sëñ bi sant nañ usmaan waaye wayjuru boppam wii di ndeyam moo ko gën a sant aram moom ab tiijaan la sunu mbokkum tiijaan la waaye léegi ab Baye la mooy ba mooy Baye Fallu Ousmane <laughs> mooy secrétaire bi le léeg léegi moom it jigéen ju baax la ndax aram day jottale bu baax aram euh, gis nga nit li ngay àggale ci Ousmane muy dimbale jaami yàlla yi boo yaakaaree ne day day wàññi Ousmane yow yaa wàññi Ousmane mathalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka mathali xabatin anbatat sab'a sanaabila fi kulli sunbulatin mi'atu xabatin wallaahu yudaaif yudaaif yudaaif yudaaif dégg léegi sax sama xarit bi mayuguma la boo noppee nga jox ma may la incha allah waaye gis nga sama maam Cheikh Anta dara dafa tàllal loxoom ni fii téeméer a fi nekk mm. fii ñaar téeméer mm. fii junni fii ñaari junni mm. léegi Aram fay bu yërëmee Ousmane ba ba ba bañ mu génne téeméer ba ñett téeméer yi di ñëw moo tax aram aram day day jottali bu baax man sëñ bi usmaan wax dëgg dafa ma xaw a daf maa xaw a saxa léeg-léeg man dama naan Ousmane mii day xam ngeeg jaxasoo gi day baax na waaye léeg-léeg mu metti ndax léeg-léeg ay nit dañuy ñëw ne ma sëñ bi dañoo bëggoon nga boole noo Ousmane mu dimbali ma ne leen lu ngeen soxla la ñu wax bu bëri wut ma rek la bu bëree ma ne leen xam nga nu ngeen def lii daf maa def parce que dama koy jàll ma ne leen bu ngeen demee laajte leen aram ne nee leen aram sëñ bi nee na kii ci sëñ bi la bàyyi ko dossier spécial la moom waaye aram mës sa mës dara lu ñëw mu jàllale ci Ousmane Ousmane yónnee ñu def sa mbokk boo ko bëggee dimbali dencal ko la mu yor bul yaakaar ne lu la yàlla jox rënk ak téye ca lay sakkane déedéet loo bëgg a barile dee ko jox loo bëgg a barile dee ko joxe loo bëgg mu néew denc ko yàlla du ca wasal barke mukk ci ci àdduna Ousmane bu doon jeexal ñaata at boobu ba léegi ñun ñi fi toog ñëpp kenn ku ci nekk la mu seq ak yow bu fekkoon ne du nitug sëñ Touba te li mu yor di jeex jeex na bu yàgg waaye nag du gën a gore yàlla te du gën a gore sëñ Touba fi koy sotti du fees de waaye fam koy jëli du du fa jeex mukk kon nag aram loolu maa ngi la ciy sant bu baax sunu rakk ju baax la juy jotal la te koy defaral Ousmane la itam euh, te loolu mooy li am solo nit ki bu dee sa kilifa nit ñi da wut si ko te yaakaar rekk indi leen ci moom bul tas yaakaari kenn sëñ Tuubaa mi mu yaakaar nu yaakaar ko dafa ne fii yaakaar du fi tase loolu la sëñ kon nag te moom comme que am na xol bi te am na yéene ji tey it du du du gàntu te it li muy def gis na ne yàllaa ngi ko koy fay bu ko ko yàlla fayul waxi alxuraan dañ ah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlif wallaahu jeex na wa ida raaw tijaratan aw in ilay watara xaa xul indal xayrun lahwi wa mina wallaahu xayru Razafet kon yàlla lu mu dige def ko inama yoo fo inama yoo foona inama yoo foona saabiroona bi bi xayri saabit kon nag jaamu yàlla bi gën a kawe ci jaamu yàlla yi mooy tabe sama maam Cheikh ku nekkoon ak sëñ Touba du sa morom ndax la ko sëñ Touba jox ak lam ko defal mu doon doxe saa yiru sëriñ Touba di tuubal ceddo yi la waraloon oto yu rafet ya ak yére yu rafet ya ak sañse ga ak euh, euh, mara kii cerey marakiis yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen wane wane doole sëriñ Touba rek a taxoon la mu ne woo leen maamam xam na li may metti moom docteur bi du du ko laal de danaan lu lu maamam wax rek ne moo koy metti rek na faj loo waaye se se sëriñ bi yoonu murit dafa soxla ñu mel ni Ousmane Faye nii wallaahi li may wax yàlla rek a tax ma ma ma di ko wax gis nga dañoo toll ci jamono joo xam ne loo jëf bala la ko kenn waxal sax yow nga waxal ko ba pare da ngay gis koo xam ne day amee teraanga di diir mbagg njabootu sëñ Tuuba amee teraanga am neneen nooy doxe mais Ousmane simplicité gi nekkoon ci moom ca tàmbali ba ba léegi moo continuer di nekk ci moom kenn mësta dégg ci àdduna mu jànni nit wala mu wax nit ab safaan wala mu merloo nit Ousmane du merloo ku yàlla bind du merloo ku yàlla bind yow kay yaay mer ñëw wax li ngay wax mu déglu la ba noppee rek loolu nag wax dëgg yàlla ku gëm sëñ Tuubaa ku ne war ngaa sagoo ku mel noonu ku gëm sëñ Tuubaa ku ne war ngaa sagoo ku mel man la ma seq ak moom xajul fii man la seq ak moom xajul fii ci baas bi moom loolu man laa ak moom ak yàlla jeex na waaye nag nit bu la àdduna bépp xamee ak moom muy yow nga ngay moom ñu bokk benn année bu ñu ganee àdduna bokk wenn weer bokk bokk ay wayjur bokk lépp ah kooku jàpp naa man ngaa seede ci moom doy na ci sëkk rek jëmm yi ci sama ginnaaw nga xam ne ñun ñëpp benn lañ woon ñoo jàpp ci loxoom indi ko ci man ñoom may seen sëriñ ñoom ñëpp ba tey jii may wax ak yow ñoom ku ci li ci gën a yéeme Ousmane doom ju mu jur maa ko tudd Ousmane ku muy maye man maay maye loolu dafa mel ni pacte la boo xam ne dafa xam ne loolu man maa ko moom ku ne mën naa teew man xanaa ma ne na diw tudd dem naa ba am na ci benn ngénte loo xam ne bitim réew la ma fekk sama xel ne ma man maa dëgg bi ya dem tuddi xale bi te ñëwaat waay ma ne dama koy wone ko man de dama bëgg ñëw tuddi si xale bi dëkk mu ne ma sëñ bi loolu jë jë jëru ko que que tudd xale ba man maa maa ko fa yebal loolu mënoon na ne kat làmp Mbàkke wax dëgg yàlla am làmp rekk la xam nga ne kuy jàpp jaan man ngaa bañ a faali jiit mënoon na ne damay ñam am na ñu may jaxasool ñoo xam ne bàyyi la ci ñoom nangam ak nàngam ah su boobaa it dañuy fan toogoon la ñuy toog rek waaye tey jii la lay gën a jàpp ba nga xam ne tey la la gën a jàpp loolu loolu dafa bokk dafa nekk ay valeurs yoo yoo yoo xam ne nañu alam fay bu baax bi maanaam jaxate baax loolu bëgg borom këram tey dimbalee borom yow yeewu yeewu bii yaa ma yee